di xaste ka dóore jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo ak ree la lépp ci ak ree la buñ la gaañee mu boo ko gaañee daalal jongante foo asalaamaaleykum. li nga xamante ne moom mooy sama bëgg-bëgg. Xadija mm-hmm. yow ku ne xam na ne umpale woo dara ci koñ bi tur bi macha am naa ko. am naa tamit nit ñu bëri ñoo xam ne xam nañ ma. Mm-hmm. te damaa damaa faral def social lu bëree bëri boo xoolee social gi may def donte jógewul sama poos mais dañ may jox may joxe. Mm-hmm. li ma nit ñi jox ma koy jox nit ñi yaakaar naa ne nag man war naa kaa mën a dem jëli ji maanaam sama xel yëpp dafa nekk ci politique Xadija waaw dafa jot nag ma dem jëli li nga xamante ne maanaam moom laa moom. li ma moom mooy am ndombal tànk ci assemblée ga xam nga élection yi la 17 bii di ñëw la. Mm-hmm, tey dem jot na ma bokk ci ndax wax dëgg yàlla ñi koy def dàqu ñu ma ko. te bu dee mbooloo am naa ko bu dee tuuti am naa ko bu dee def lu baax yàgg naa xar su ko ñu Xadija. loolu laa noonu naa ci waxtaan ak yow ndax du ma def de dëgg li nga wax yëpp. Mm. waaye daal politique dalul sama xel te dama see xaw a tiit lool. Mm. su ma sañoon daal nga bàyyi politique bi continuer si social bi nga doon def di dimbali nit ndax doomu aadama yi ngay dimbali lu baax la ndax yàlla moo digle ñu dimbali doomu aadama yi comme yaa ngi leen dimbali si loolu su ma sañoon daal nga continuer loolu te bàyyi politique bi daal ndax politique bi daal ñetti risque mu ngi ci mhm. bi nga xamante ne moo di kaso mu ngi ci benn bi sa sutura dina xawee ko sa alal dina ci dem beneen bi dee sax xaj na ci te su ma sañoon nag nga toog sama wet ba si kanam nag Fatia li nga wax dëgg la waaye yàlla du bind ci fukk di rey ci ñaar wala ñett ndax ku ne xam na ne nit dee na ñàkk na ba kanam faatu na te maa ko mag waaye tamit nit maanaam suturaam xaweeku na ndax boo xoolee réseaux sociaux yi ni mu demee nit a ngi xaw suturaam te du politicien mhm. ak ban nga ma waxaat sax ñett yi ñu ngi ma doon wax kaso mu ngi ci kaso itam jombut kenn mhm. ndax ka def ma nga fa kañ def ma nga fa nit nit nit ñu baax ñu bari dugg nañ kaso kon yaakaar naa ne kaso jombul kenn soxna Khadija te itam boo xoolee alal ji nga xam ne moom la nit ñi dem ci politique bi mhm. xoolal immeuble yu baax yi air plus nangam sàngam yi hmm? di di am ci oto yi bu dee soxna am na ko macha allah yaa ngi toog mais yooyu dama kaa war am xadija politique bi daal di koy def dàquñ ma ko xadija te jàpp naa ne war naa cee am ngir mën a faj samay soxla mm-hmm. loolu da dëgg la Ndiaye doguma la sax si biir wax waaye tey jii Sénégal dañ jàpp ne tey boo ne tekki rek mooy ki nga xamante ni am na kër gu rafet am oto bu rafet am xaalis loolu yëpp pour man nekkul tekki tey yàlla mu ngi lay suturaal li la yàlla di suturaale boo ci doyloo nga nite am loo xamante ne yaa ngi si jàpp di dimbali doomu aadama yi nga am xel mu set mu màcc man yaakaar naa ne loolu mooy xamante ne mooy teraanga loolu Sénégal parce que tekki daal dañu yaakaar ne boo duggee ci politique la dem uti daw fii loolu yëpp du tekki nit ki bu la yàlla di suturaal li nga am nga di ko bokk ak doomu aadama yi rek yaakaar naa ne loolu rek mooy tekki. waaye Khadija alal baax na ci àddina ndax fajul dee waaye gàcce lay faj ma ne Khadija li xam naa ko. man xam nga ne bu ma que jeu concours sax damay gagné daanaka lépp lu ma daan yóotu ci wërsëg dama koy am bu dee alal aw ma ko waaye lu ci bëree bëri saa ma ci bokkee damay gagné bàyyi rek ma politique xadija loolu dama ko ñaan ak ci njekk mhm. may ma loolu rek yow xam naa li ma la wax xam nga yow sama xarit nga te loo ma ñaan lu ne rek sañu ma la kaa bañal mhm. ndax nee naa yow yaay sama wéeru waay te yaay sama doole mhm. ah kon nag bu ko defee rek ma daal di laa bàyyi daal di laa jàppale topp sa ginnaaw te su ma jógee dinaa dem sama association yi ñu daal di la dooleel nag incha allahu rabbi sa mbootaay yëpp na ñëpp ñëw incha allah incha allah dawal gaaw na nga wal ma mbay mooy sama xarit dëkk ci koñ bi ndax gëj ñoo gisa lool xam naa ne waaw jombul ne fan yi dafa xaw a jàpp xam naa teel nag waaye woor na ko rek waaw incha allah doo benn problème xaaral lépp ci foo ak ree la la gaañee boo ko gaañee daal careful. maay man maay yow léegi sax gis nga slogan bi dem na ba ci nguur gi ndax ku ne xam na ne fuñ ma gisee gis ma fuñ la gisee gis ma li nga naan maay samedi ak dimanche la suñu diggante suñu diggante dara doxu ci boo gisee ma damaa yeewu sama xel nekk ci li nga xamante ne mooy dëkk bi ni mu yëngoo ndax xam nga ne la 17 mooy élection législative yi député yi mbay nag jot na ma nekk député laay gars yi li am am naa ko maanaam xam bi am naa ko dëgg la mën-mën gi mën naa ko waa koñ bi xam nañ ma maa ngi def ay social looy xaarati. waaw mais nag wax dëgg yàlla nag war naa mën a ndekki débit baax mbay. dëgg la de. loolu de daa xel na ci waxtaan ak soxna Khadija ma ne ko nag demal nga wol ndax même boo nangoo bëgg naa mbay ñëw waxtaan ak man loolu de laa gis moo tax ma ne naa la woolu. dëgg la de. Mhm. mais Mamadou. Mhm. ma ci woowee. Mhm. day mel naa si ngoxam soow ndax xam naa ni. yow moom man ak yow ñoo nekkan fii si koñ bi. te xam naa ni bis boo demee ba nekk député. man moom sama affaire day baax. jongante foo ak réel boo gañee foo ak réel boo ñàkkee foo ak réel lépp ci foo ak réel buñ la gaañee. saa waay boo ko gaañee daalal. parti bi ñu koy tuddee. exactement nag loo gis. sama njariñ. sa njariñ yow. sa njëriñ yow. ah sama njëriñ sama njëriñ. ah waa day leer nag sa waa ji man maa woote nag maay député bi de. te parti foog na bu ma nekkee député député nga nag de. mbindaanu député député la. jabaru député député la waaye nag sa waay. boo ma de ginnaaw député boo ma laa wax. parti bi tamit loo si gis sa waay. parti bi waaw li ma la léegi rek. sa njëriñ sama njëriñ. sa njëriñ ñun ñëpp. xam nga toog muy dox am na ci réew mi wala jóge na fi. li ma yeewi iya, askan wi bokk yaakaar. nga ni ma sama njëriñ Sénégal rek xaw ma bés bi xaw ma lu nekk fi kay xam nga ne man mii fu ma dégg sa raxu laax maa fay jiitu sama njëriñ baax na fu ma dégg sa raxu fay jiitu yaa sa njëriñ sama njëriñ la mooy sama suur xool ni ma woowee caution ba la ñu dem rek jeex na xoolal am naa ku ma war a financé nee na ma naa bokk rek nga ne ma lépp moo koy def yow xam nga ne koñ bi lu fi dee maa ko rey waaye ñun tekki nañ am na ay financement <laughs> sa waay ñëw na yaa ñu dem

nijaay man de nag wax dëgg élection yi ma gis. Mm. na wax ji ñaaw na. wax ji ñaaw na mm-hmm. warante gi bari na. Mm-hmm. Mm-hmm. coow li bari na nijaay. Ah, man na xamal ma fas yéene defam. toog ci kër gi ba bisu élection yi ma jël sama carte dem voté ku ma neex ñëwaat ah, toog ci kër gi. loolu soo ko defee am jàmm. waaw ah, nit ñi nag war nañ bàyyi xel loolu. nag affaire yi day paase te ñun ñooy nekk. da ngay gis kër yoo xam ne ñi dañuy nekk gauche ñu nekk droite ñuy réintervenir mën na ñàkk. Sénégal ñoo ko moom. ah gaal bi bu muccee ñun ah te ñun ñëpp fonk gaal bi moo ñu tax a jóg. Ah, te policiers yi sax dañ ko jaratul. Mm-hmm. Ah, am nañu si gore nag ñëpp meluñu ko mais dañu moitié bi yëpp gorewul. ñëpp gorewul ah, koo ci puus mu tàkk waa këram ak famille ñi dafa doy waar. ndax man mii ngay gis nii. Mm-hmm. politique bu dul ginne politique naa ko. Mm-hmm. lu ne ci as kaw asamaan si laa demal woote ji ma ni parti bu dee parti ginne woo nañ ma fii. waaw benn bés jeex naa jékki-jékki ay ginne yu woo. Hmm? nag si parti yi lañ ma xamee. nag day rax de. day waaw ma envoyé ma numéro boo xam man taataal moo xam ne ba ma demee mooy sax ñu jombal ma. yàllaa akbar yàlla ma dimbali sax. yow kay yàlla la dimbali yàlla ma dimbali. loolu dal na ma. politique bi lu ne dugg naa ko ci. ci kaw rek laa woote jiw. amul parti bu dul parti bu gàtt gi ne xaw ma. góor yóbbu dañ ma dañoo ko réewul moo tax ma toog sama rukk jàpp sama ñàmb boo ko defee noppalu du ma xuloo du ma xeex déedéet nag jaru ko nday jaru ko bu dimanche ak jàmm ci kattanu yàlla ma dem mm-hmm. woote ki ma doy mooy dëgg koo xam ne am naa yaakaar ci moom mm-hmm. war na mën a doxal réew mi ñu fal ko nag ñu ñëpp Sénégal moo ñor mm-hmm. gaal bi bu muccee ñun ñëpp ñu mucc lu ñuy sàmbee gaal bi nag kenn ku ne da war a mën a <coughs> réew noonu la war a doxee kenn ku ne la nga man pour réew mi dox ret gaal bi dem ret da nga war a doxal mais buñ la falee faluñu la da nga siy war a doxal sa mm-hmm. nag jot même bu falawul li mu am matière luy doxal réew mi da koy def Sénégal nag loolu la ñu war a foofu lañ toll mm, foofu nii foofu lañ toll coowlee fi bëri foofu lañ toll coowlee fi bëri yàqante bi xuloo xeex tojante bo ah, mu fi bëri de lañ bëri nañ bëri na de wax bu ñaaw bu de nit ba mu falu mm-hmm. mu mel ni xamatul la de dëgg la de. waaw mën na nga xam fi nga fët. mu ngi noonu te doo du ma kenn kenn du ko ne tànnal ki nga bëgg. Mm-hmm. loolu laay kenn kenn. ko ne mm-hmm. pour suba. Mm-hmm. ma bañ euh, yow xam nga ne instant bii nii caution bi dugg na. waxoon naa la sama partenaire yi may financé saa su ne ñoom wóolu nañ ma. sama caution dugg na bañ validé ko léegi nag liste yi rek lañ may laaj te xam nga ne liste Sénégal dafa am parité benn góor benn jigéen xam nga ne ma maa tëdd liste bi. dëgg la waaw léegi nag faaw ma teg fa jigéen te xam nga nag. kan nga ma bëgg a teg yow. ah yow tamit Mbaye waxal ndànk soxna Khadija mi laa bëgg a def numéro 2 après yow nga ñëw troisième Mbaye. sa séddale sa séddale neex na. Ah, bi buki bi njur bi samba mais buñ ko gisé non mbay yow xam nga ne question man la ma indi xaliss bi yow mbay lan nga indi yow lepp mako indi di sa waay defal tank ya indi xaalis bi waaw maa initiative ma bok señ bi nañ diglonté yow yow ay tëdd bi deug la mais man señ yi ma man yi man doon yóbbu nak sang na la fune wa d'accord mbay sang na la béréb bu nek dugal na la ci tati guuy dugal na la fune sang na la lu ne la lo rek la sangewul la lo kessa la sangewul léegi waxal lo bëgg ñaar la wuta ci galaj lan nga bëgg loolu sa rôle sama mag bu jigéen bu sës lëkk si ma ñu mbokk benn ween moom ngay def euh, premier liste bi si kaw mbay defal ndànk nag mbay mbay yow bu ma nekkee député sama jabar daa war a nekk député sëñ bi loolu man maa ko jox loolu mënul nekk yow daal léegi li may defal dang nga bëgg dara ma ne da nga siiw ne pon loolu mënul nekk laa wax affaire kon day yàqu waxal ndànk mbay waxal ndànk balaa xadi saa di ko dégg sëñ bi waxuma ndànk laa wax mbay baaru suñu jëf day bëgg yaq ku baax na yaq na fi yam mu jeex xana neew sama njariñ mo sa njariñ bu dee sama njariñ nak commencé gun sa nga commencé bëgg bëgg def ni tar li nga waxal moy eh, sama njariñ man la sa njariñ moy suñu njariñ waxuma ndànk señ bi mbay sama kër nga neew Mamadou waxuma tànk de mbay man député la jox ma cër buñ ma xasee ba inscrire ci lycée rek man député la honorable nga ma war di wax bu moy wax da nga wara wax ndànk mbay sama kër la suma ma nekkul député doo nekk député de yow député bi député bi ci nga yaakaara kër nga sama kër la da ngay fay lu yaas bo fay ci biti nga jëm wa légui mbay après ñu waxtaanee ko maak yow ñu xol dégg ndax parité bi mënul ñàkk foog respecté ko benn goor benn jigen lañ wax xana di ma may lool ñu waxtane di lañ tubu maak yow sama way nga. kan nga bëgg def def yow sama way nga lool après dinañ ci waxtaan. Ah. balaa xalisa di jëf. ci fo ak réel buñ la gaañee jaar sama baay ku ne xam na ne aussi koñ bi mhm. yéen Yun yoroon li nga xam ne maanaam mooy koñ bi mhm. ñun xale nag dañoo bëgg màgg mhm. ngir yoral lees bi loolu moo tax ñu bëgg dugg ci social ku ne dara ump la ci ñun lu ci bëri maa def ci koñ bi donte relation may euh, da ngeen ci ah. sama nyom papa ak sama ñoom yaay nyep, duduk. du dëgg ak ñoom sama tante Diena ba mii yéen ñëpp da ngeen doon sonn ci politique mais Yun leen ci dara bàyyi ñun xale 2.0 yi ñoo ngir bëgg dem jëlee li ñu moom. Ah, ndax assemblée dafa war dafa war am ay vingt cinq ans wala mhm. trente ans. bu njëkk ba paa yi da nga gis. Mhm. mais léegi war na am imam. Mhm. war na am war na am ab tailleur war na am war na am ci biir assemblée bi. Ah, ba tax na jot na daal. bàyyi ñu ñëw ngir waxtaan seek yéen. donte yéen seen wàllu wéy na. mais nag bu ngeen ñu joxee li ngeen am. ak ñun lu ñu am buñ ko boolee yàlla mën ñoo dimbali. candidat laa ci élection législative yi pour le 17 bi. valide nañ sama candidature sama caution yi dem na. Mhm. ci liste bi daal laa toll. Mhm. bàyyi mhm. ma taxoon man damay ñëw waxtaan seek yow. waaw ma daal loolu moo nekkoon samay tànk. te tam sama soxna si yi nga xam ne Xadija la jàppale na ma lool. Ah, donte ay ndaw lañ waaye am nañ ay bëgg-bëgg. te it moom mu ci liste bi bàyyi. te bëgg naa def si liste bi. Ah ndax waaw mosoo leen ko am bàyyi. nekk député mosoo leen ko am dama bëgg su ma demee assemblée bàyyi di gestu di la gis. ah sa rafet na ndax man li nga toog yëpp sa papa laa lay xoolee ndax sa papa dara ump la ni deere moo ñu mu nekk ku dëggu ki nga xam lépp lu mës a wax lu muy def la kon yow doomam boo demee àdduna di dox di dox di dox ba nga nekk ñëw di politique xam nga dama lay jàppale naa la jàppale si zaayit jàppale si baatin maa ngi sa ginnaaw lépp loo xam mën naa ko si rek naa la ko jàppale man ak samay nit man ngay gis ni ump tey boo wax leen loo xam ne mosu leen ko xam ci man njaay politique bi ngay dégg man mii la xam naa loolu mosoo ko ci xam ah man kay loolu mosuma na ba a dégg de mag yi rek ñoo xam nag mosuma koo dégg dem na fa ak samay maas képp ku fi musa falu jaaroo ci man doo falu waaw kay soxna Dieyna Ba ginnaaw ba si suñu kilifa yi waxee ba pare mhm. tey dama ñëwoon tey sàkku sa ndimbal si yow comme que ni ko suñu kilifa yi waxee tay dama bëggoon suma ma sañoon tey nga ñëw jàppale sama jëkkër tay si li muy def ñu wàllu politique bi mu dugg mm-hmm. ndax yaakaar naa ne nit ku nekk boo nekkee sa borom kër li koy jëmale kanam rek da nga ko ci war a jàppale mm-hmm. Mm-hmm. tey jii man convaincre naa ñaari groupe muy groupe dox daje ak groupe aawa yi te yaakaar naa ne yow yaa yor groupe nopp sa jëkkër suma ma sañoon nag boo demee sa groupe boobu noonu nga waxtaan ak ñoom ñi nga convaincre leen léegi su ko ñu jaade jàppale ki nga xamante ne sama borom kër ah man de groupe nopp sa jëkër mom wax nga dëgg mako ko waye man politique la waxatu dara dara dara waxatu mako ci ndax dama politique politique ba samay dal dag gisuma ci dara ku ñëw wax ba sa ñeex sax yaap nga dem sa yoon sama groupe bi dama leen convert ba son ba son man mënatu man si yëkëti kenn yow nak nijaay bet nga ma lool bet nga ma tay suba fi lañ tok sank rek yagul dara fi lañ tok nga dugal ma sama nopp bi ne bay nga politique nga gis ñiy ñëw rek nga soppeeku man nag bett nga ma de bett nga ma ndax waxuma woon lu politicien nijaay mënoo maa bàyyi politique yéen ni jox sa man nee jadi? la politique bu ma nijaay ngir yàlla ba ma wax politique ah doo politique politique bu ma de waaye tey ngaa politique hmm, yaa ma ko jox waaye ba maa waxi politique man xam lii de moo la ko jox ku ma ko jox moom doo la ko jox hmm. waaye boo dee jox ko sama tànn ay waay ah lii la defati de lii la defati waaw cey toog la da cee baax Patte d'Oie de daa toll gis hmm. rusi bi mbaadu dugut guddi waaw waaw yaa ma ko jox boobu laa xam ne yaa ngi ci biir waañ bi <laughs> ci sama nijaay li bu dakkul moom ma tegal ci lu ci gën neex sax fayal nañu saako ceeb ak diwlin de fii ci bitig ah, fii bu yow indi sax man maa yóbbu fa jox ko groupe nap sa jëkkër ma ci biir ma ni fekk ma ci biir tàngaay bi sant yàlla bu baax waaw fan yi moom dafa tàng naka dafa tàng trop fan yee day ñëwoon nañ fi ba yow ba ngeen ñu bu baax fi mu toll de sama borom kër ko defal nañ ko député ah, ah fal fal na ah alhamdulilah rabbil alamin loolu lañ bëggoon loolu lañ bëggoon bu dee am rek mooy li gën waaw wax dëgg allah kontaan naa bu baax a baax a baax ba xadi léegi dama fi ngir yow si li nga xamanteni ni sama borom kër comme nekkul won ci état te fi mu nekk mu ngi ci état légui dañ ko jox ci logement sociaux yi mhm. dañ wara taxu ci biir semaine bi toxo mhm. ah yeen mom mi gaaw na de yeen ñaat at yeen ngi ci gox bi ngeen xey xey benn su taxaw fi ne ma dañuy toxu wa li ngeen digé ak sen bi nak wa man lan lay wax ak sama wa groupe mbay li ngeen digé won yépp di ngeen ko def ah lool day ni ma la waxon rek ñu digélé won yépp ah. dinañ ko def ah, te ni suma yéggé ni ni dinaa si waxtaan ak sama boroom kër. Ah, ndax nag nit amul lu dul kàddoom te xam naa ne sama borom kër ku fonk kàddoom la. ah man de ba nga ñëwee fii yow ak sa boroom kër dama ne woon du ma dugg ci politique. sama nijaay di wax a wax ma dugg ci. waaye nag toxu bi nag moo ma xaw a kii tuuti ndax waa koñ bii dangeen ngeen diggee ak ñoom sa borom kër diggee ñoom. kii ki ma fekk sama kër kan la. ay jaam la ngeen yéen yéen ay jaam ngeen laa wax. ja jaam jaam bi nga toogal. waaw ñooy ci ay jaam. waaw ni yàlla looy wax yow laa ak say bërëm kër yëpp ay jaam ngeen maa ko wax. ma ni sa jëkkër musul toog journée boo xam ne bu ñu jokkoo depuis bi ñu tàmbalee ba ba bu ma génnoon jàkk ca sax appelam laay gis muy guddi di di di bëccëg suba ba léegi maa ngi koy woo mënu ma ko jot. ma la si gën a li ma si gën a métti sax mooy bu fekkoon sax dama kaa woo ñu ne ko ki ngay woo mënoo ko jot sax. Mhm. ma mën a xam ni dinaa ko jot. waaw waaye ki ngay woo war na la ma war meen na am woo ko nag di ko jot ay traité nga ne jaafa tëj fii lañ toog barki démb yàggul dara fee ci taatu miir ba man la nijaay politique ma nga ko <laughs> jotuma ko de doo ko jot <laughs> ay waxoon naa la ko de nee naa la politiciens yëpp a yem ñëpp yem ay warkat lañu mun nañoo dugg ci kër fa cent léegi pour am sa carte rek bu ñu ko amee bu ñu paree pare nañ si yow wan ginnaaw waxoon naa la ko ñaata at yaa ngi politique moo tax nga wax wax wax man la nijaay politique um nga wax wax ma ba bàyyi waaye baax na waxoon naa la ko nag. war ngaa toog dugal génn sama kër warkat yi. ñii waxoon naa la ko de. yolas yolas indi ak dokkul mel ni sàcc. ak yu ruusam ñii. waaw nijaay dama la ko yàgg a wax. ñii. nijaay dama wax a wax a wax fii lañ toog benn jour fee barki démb xaw ma fii lañ toog. man la nijaay dugg ma ci politique di xaste ka doore jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo ak ree la lépp ci foo ak ree la buñ la gañee boo ko gañee daalal jongante foo